incha allah ñu ngi war a jël tey aaya juróom-ñaar ci suuratul maida suñu borom di waxee ne waskuru nicmatallahi alaykum alhamdulillah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقى الحمد لله إنني دي دندو أقيول وخمني جلد بتنكي بتورا باي خل من يلا بولكو إنيغا خمني نيجي دندو ليغا خمني من شهر رمضان loolu xéewal gu rëy rëy la bokk na it ca lay taaru chehru ramadan mooy la ko borom bi lënkalee chehru ramadan alladi unzila fihi alquran julit nekk di tiim alquran di ko jàng ci chehru ramadan gënil la waaye rawatina nag mu koy defee ci néegu borom bi jalla wa ala nga xam ni dafa lënkoog chehru ramadan yaakaar naa kenn ci yéen réeréwul dina yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam chehru ramadan masaan jot fukki fan yi mujj yi yëpp day dagg mboole mu dem ak dikkam sax ca jàkka ja bal at mi fi mujj sax ñaar fukki fan yi mujj yëpp nga xam ngeen dugg nañ ci ñaar fukki fan yi mujj tey suñu fukki fan ak ñett waaye yonent bi aleyhi salaam ñaar fukki fan yi mujj yëpp da koo def itikaaf mooy année bi fi jógee loolu ñuy wane ni bokk jàkk dafa lënkaloog chehru ramadan borom xam-xam yu jëkkee dañ daan wax kaay leen dem ca jàkka ja sàmm suñu koor kaay leen dem ca jàkka ja ngir sàmm suñu koor en général jamono bi ñuy toog fii foog naa kenn du jëw kenn du fen kenn du xool bu saa yoon nekkul ila axiri loolu nag mbokk kon boo xoolee ay ngeneen la yu bëri yoo xamee ni ni dafa tegaloo jaam di ni jiitu mooy mu yëppeewul yàlla ci moom sant ko loolu day saxal xéewal ba te day yokk xéewal ba kon ñu ngi sant suñu borom mi ñuy def na ci xéewal yooyu yal na yàlla nangul ñu te yokku ñu kon incha allah ñu bàyyi ak Ousmane mu gën a gis ñu bind bi jot
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شكرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu borom mu ne ay yéen jullit ñi waskuru nicmatallahi alaykum fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen wa miisaaqahu alladi waasaqakum bi ak diggante ba nga xam ne diggante woon na ak yéen yu ñu fasante woon ak yéen ci kóllëre id qultum samicna wa atacna ba ngeen di wax dégg nañu topp nañu wattaqullah te way ragal leen yàlla inna allaha alimun bi zaati sudur yàlla day xam na la nekk ci biir dënn ya yaa ayuha alladina amanu te yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm kunu qawamina lillah nekk leen di aji taxaw ñeel yàlla kese shuhadaa bil qist doon aji seede ci maandu wala yajrimannakum shanaanu qawm bu mu leen yóbbu mukk ci bakkaar noonu gi ngeen noonu ay nit ala alla taadilu ci kaw ngeen di bañ a maandu iadilu huwa aqrabu li taqwa maandu leen moo gën a jege ak ragal yàlla wattaqullah ay waay ragal leen yàlla inna allaha xabiirun bima taamaluun yàlla day ku ñàkk kumpa la ci li nga xam ne yéen a ngi koy jëf وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يلا دي ني وادا نيغا خامني دانيو گم تاي ديف لو با لهم مغفرة وأجر عظيم dana leen ñeen lii di jéggal ak fay boo xam ne bu mag la ñu ngi noonu bokk suñu boroom day wax julit ñi fàttaliku leen samay xéewal ci yéen mbokk niñ ko waxe sànq jullit del fàttali ko xéewal yàlla te xamal ni xéewal gi gën a rëy du la yàlla defal mooy boole gim la boole ci lislaam rawatina bu la boolee te niy dund sunna muti ca shirkiya ak bidaaya waaye itamit boolem xéewal yi la yàlla defal xéewalu wér gi yaram xéewalu am loo lekk xéewalu am njaboot xéewalu am jàmm sa réew yii yépp ay xéewal la yoo xam ne suñu borom mu ne nañ koy fàttali malheureusement li ëpp ci nit ñi nag problème yi rek lañuy fàttali fuñ toll ñu ko jàmbat sama nangam bi nii sama nangam bi nii boo lii moom nangam bi problème rek la ñuy jàmbat xéewal yi leen yàlla di bettee kenn duy waaw waaye problème moom mën nañ ko séddoo ku nekk loolee nag mbokk jullit du mel noonu jullit day yëg xéewalu yàlla xam ne lii ci yàlla la jóge yàlla ko baaxee xéewal googee mu sant ci yàlla gannaaw loolee mu fexe nag delloo ko fa neex yàlla bokk na yëg suñu borom mu ne nañuy fàttali ko ba tey na yow jullit dangaa jël engagement yow yaa ne yàlla gëm naa la dinaa la topp te léegi lañ ko wax ci kanamu yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yàlla ñun yow rek la ñuy jaamu yow rek la ñuy dimbindiko kon muminuuna kullun amana billah ila axiri wa qaalu samina wa atana julit yaa ne yàlla man nangul naa la naam kon kay ragal leen yàlla nag bu mu yem ci wax rek naafiq yi ñoom dañ ne samina wa asayna dégg nañu moy nañu la ëpp ci ñoom waxuñu ko seen làmmiñ waaye seen jëf moo wane na moy nañu amma yéen jullit ñi dégg nañu topp nañu ragal leen yàlla ba seeni jëf dëggal la nga xam ne mooy seen kàddu googee te xam leen ne yàlla yemul ci xam seeni jëf waaye xam na la nekk ci seen biir xol te it mbokk loolu la ñuy jaamoo yàlla jaamu yàlla du def ay digalam waaye jaamu yàlla mooy sellal ay digal ñaari nit daan ànd makka aji ji kii yàlla tabbal àddina kii yàlla mbugal ñaar daan ànd ci jihaad kii yàlla tabbal àddina kii yàlla mbugal ñaar daan boole saxe ku ne un million kii yàlla tabbal àddina kii yàlla mbugal lan moo waral loolu mooy yéene yi nekk ci biir xol yi kee la muy def yàlla rek moo tax kee la muy def ngir sal rek a tax suñu borom nag mu ne xam leen ne yàlla xam na li nekk ci seen biir xol te yeneen ci bi la doon wax ak taqwa haahuna yàlla na ragal leen yàlla yonent bi ne ak taqwa haahuna yushiru ila sadri di wane dënn fa la taqwa nekk bi ragal yàlla gannaaw loolu aay bi ñu jàngoon ci suratul nisa suñu borom ba mu waat ko fii doonte nag suratul nisa dana yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qist shuhadaa lillah fii mu ne kunu qawamina lillah shuhadaa bil qist ca mooy na ngeen taxaw ci maandute la jënd ci suratu nisa fii mu ne na ngeen taxaw ci yàlla tax suratu nisa mu ne ngeen di seede ci yàlla tax fii mu ne ah ngeen di seede ci yàlla tax fii mu ne ngeen di seede ci maandute te loolu lépp bokk dafa lënkaloo heure boo jógee di seede seede boobu da nga koo war a indi ci yàlla tax même bu doon da ngay seede loo xam ne ni yow lañ cee condamné wala ngay seede loo xam ne si yaay dañuy condamné wala sa baay suñu borom mu ne dafa jege naa leen ñàkk a am ko laabu awlaa bihim yàlla gën a yee seede gi daal def ko ci yàlla tax ba nga jógee ba ngay taxaw di seede it seedeel bi la risque seedeel ci mankat bul jéng jëm fenn te loolu mbokk la ñu suñu borom wax mu ne noonu ji ngeen noonu ak i nit it bu mu leen yóbbu mukk ba ngeen bañ a maam doon Sénégal la ñuy wax dañ naan bu leen nekk ay politiciens gars yi nga xam ne ñu politiciens lañ Sénégal mooy ñi nekk parti au pouvoir opposant bi ni ñuy def dara baaxul heure boo jógee parti au pouvoir dem opposition parti au pouvoir bi ñuy def dara baaxul am déet naka noonu waa opposition yi ku ci jóg dugg parti au pouvoir la nga jàppoon dara baaxu fa léegi lépp baax fa nga jóge dara baaxu fa donc loolu mooy li ñu gudd bi seen di jàngal waaye nga la way yéen ndaw ni ku leen mel noonu bokk islam xamul transhumance xamul wax waxet loolu ay règle politique la ñoom dañ naan politique amul moral li compté mooy tey xalaatuñu li xewoon démb ka nga lënkaloo woon di jokkoog moom am lu ne ngeen def ko tey mën nga koo jàmpaa ko mu daal tey nga xam ne ma nekkoon sam noonu lu ne ngeen jàpp tey mën nga koo lëng ngeen def ndax politique moom amul démb wax loolu lislaam xamut loolu islam yi nga xam mooy nit ki lu ngeen noonoo noonoo teewul membre su diggante ko su nekkee ci dëgg wax ko su yoree ab delloo ko ko nit ki lu mu la jege jege jege jege maanu sa diggante moom bu nekkul ci dëgg wax ko bu yoree ak jàmbur téye ci loxoom ba mu delloo ak jàmbur lii mooy jàngale bi ñu islam jàngale war a dund nag loolu gën a jege ragal yàlla lu tax ma nit ki mën na maar bu fekk yàlla taxu ngir yeneen intérêt tax amma li gën a jege ragal yàlla mooy maadu te yàlla tax borom bi baabu wat wattaqullah parce que rek ay ñaari ay lim jox wattaqullah ragal yi yàlla waxoon na sànq ne xam naa li nekk seen biir dënn yi tey mu ne xam naa li ngeen di yëg inna allah xabiirun ma taamalu alxabiir mooy koo xam ne dara ëmb ko ko ci li ngay wax ci li ngay jëf dara ëmb ko ci sa xaal boo mën a nekk yàlla xam ne lépp borom bi nag lii mu déggee des fois léeg-léeg mu métti loolu seede contre say wóytu seedeel dëgg say noon loolu léeg-léeg mu métti lool waaye jullit moom day xool ci gannaaw loolu lan moo nekk ci gannaaw lii li nekk ci gannaaw lii mooy aljanna loolu tax sahabatul kiram ñu bëri rey seeni bàyyi bokk na ci Abaa Ubayda ibn Jarrah rey seeni bàyyi noonoog du kenn xamul suñu borom nag mu ne ñi nga xam ne dañoo gëm tey def lu baax def lu baax lu baax lu dul moom ñaari charte jëf ji yonent bi alei salaam moo ko jàngale bi nga koy def da nga koo def ci yàlla tax suñu borom mu ne ñii dinaa leen sang ba ñu set wecc ay baal leen seeni bàkkaar gannaaw ba tàbbal leen ci pay goo xam ne mooy pay gu màgg la pay gu màgg la naa rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na àjjana téeméeri daraja téeméer dafa gën a néew la ci téeméer yoon mooy ñi nga xam ne seen nguur ëpp na nguuru àdduna ji fukk yoon ñu doog a jàll deuxième troisième ba baaxir ndaw si aala fay la bu mag amul fu mu yem kenn mënu ko takk mi ngi noonu yal na yàlla jagleel na ko
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni walladina kafaru ña nga xam ne weddi nañu seen borom wa kazzabu bi ayatina daa di ne aaya yàlla yi dara du ci dëgg weddi ko ulaika ashabul jahim ñoo ni day ñooy ñooñi sawaras jahim yaa ayuha alladina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm uzkuru ni'matallahi alaykum fàttali ko leen xiiwalu yàlla ci yéen id hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyakum ba muy mébét aw xeet ci tàllal dem ci yéen seeni loxo fa kaffa aydiyahum ankum yàlla fekk loxoy noonu yooyee ci yéen wattaqullah te waay rakaleg yàlla wa ala allahi falyatawakkal almu'minun ci yàlla day rek lay wékku ña nga xam ne dañoo gëm wa laqad axada allahu mithaqa bani israil yàlla mu ne ñun de jël nañ kóllëre bani israil wa baasna minhum isnay achara naqiba daa di génn ci ñoom fukk ak ñaar ci tànneef wa qaala allahu inni maakum yàlla mu ne maa ngi ànd ak yéen nag la in aqamtum salaata wa aataytum zakat yéen yéen a ngi taxawal julli di joxe azaka wa amantum bi rusuli di gëm la nga xam ne mooy sama yonent wa azartumuhum di leen dimbali di leen dooleel wa aqrabtumullaha qardan xasana ngeen di lebal yàlla bor bu baax la ukaffiranna ankum sayyi'aatikum danaa farñeel leen seeni ñaawteef wala udxilannakum jannaat danaa leen dugal àjjana yoo xam ni tajri min tahtiha al-anhar ma ngay daw ci suufam li di dex ya fa man kafara ba'd ba'da zalik képp koo xam ne dina gannaaw lii minkum ci yéen day faqad dalla sawaa as-sabil boo ko day réere na gantaa diggu doomu ci yoon mbokku alaxira ñaara fay daje mooy ñi gëm yàlla war a tabbi aljanna ak ña nga xam ni ñooy ñayeyoo sax safar allahuma am na ña war a dem aljanna ñoo xam ni daan jaar sawara yàlla doog leen faa génni yàlla yàlla musal ñu ci te yàlla tabbal nga àjjana direct ammaana jéeféer yi weddi yàlla weddi aayaat suñu borom mu ne ñooñu ñooy ñooñu sawara ñoom asxaabu noor ñoom ñoom bokkuñu ak jullit ñi nga xam ne ñoom dañu faa dugg rek jaar ñoom fa la ñuy sax ba faw xaalidina fiha abada suñu borom yàlla nag mu ni te yéen jullit ñi fàttelu ko leen xéewalu yàlla ci yéen bi benn xeet ñëwee ngir tàllal seen loxo ci yéen te loolu bokk naa lu ci suñu borom yàlla détaillé keroog suur ba bu dee bi ba borom bi di wax naan huwa alladi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makka ba yonente bi ñëwee ànd ak sahaaba ñëw campé ci Hudaybiya bëgg a dugg Makka wa Makka ñu ne du ngeen fa dugg ñuy def ay la nga xam ne nii ay ndaw yónnente ndaw ba yónnente bi yónni as Usmaan ay xabaar ñu nga rey ne wa Makka yónni nañu lu man ñetti ndaw ñu ngi noonu nga boo leen fi leen wax boo xam ne moom ba mu gisee jëli ma dàggal yónni nañu Urwa ibn Mas'ud mu ñëw wax waa Makka ca fin ba la ñuy doog a yónni Suhayl ba ñu leen ne Suhaylu yàlla mbir ma doogoo sottee mais ci diggante fan yooyu ñuy def loolu waa Makka am na benn mbooloo mu ñu yónni juróom fukki ponkal yoo xam ne dañuy ñëw danañu def commando suñu demee rek rey Muhammad bu ko defee mbir bi dana jeex ba ñëwee ba jub armée bi suñu borom xamal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yónni ay ndaw jullit ñu déegi leen jàpp leen indi leen bi ñu leen ñëwee ñuy bëgg a lakki daar daar yonent bi na leen dee da ngeen di jóge Màkka da ngeen jógoon def bëgg leen may rey si xam ni li ñuy wax mu ne waaw mais baal naa leen telu leen neen waa Màkka man jàmm rek dama yëkkati gis ngeen mbokk loolu kan moo ko def yàlla moo ko def yàlla moo fekk seen i loxo dul woon ak looloo mën nañ rey yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu am na ci lu bëri yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi bu masal camp ci àll bi suñu gisee benn ker bu fiir dañ ko koy bàyyee dem tasaaroo am na ci benn xare ci xare yi fi mu tëdd noonu di nelaw benn yéeféer di ko yoo di ko yoor ba ñëw rek tiim yonent bi alei salaam yonent bi ne xiféer mu daal di xat ci jaasi ne ko Muhammad bu lay musal ci man yonent bi ne ko Allah waa ne tiit ba jaasi di daal yonent bi këf jaas yi dafa yow ku ne musal ci man mu ne ko sang baax rek yaa ngi nekk sang baax rek yaa ngi nekk mu ne ko waaw seedal yàlla ma yónni mu ne ko ah guddi dëgg man mun maa seedaloo waaye daal li nga li ma lay seedal ba baa may dee dutuma la xeex te loolu mu bokk gis ngeen arab yi dañoo amul dugg yu bon bon a bon waaye bokkoon na lu ñu amoon muy dëggu dëggu moo tax ba biir Makka amuloon naa fekk gis ngeen dëggu lañ defoon loolu mbokk yàlla ko def wax nañ ci le passé keroog xasootu Badr waa Makka bi ñuy jógee Makka ak mille xeexkat yonent bi trois cent la c'était pour fay islam keroog xare Uhud bañ ko préparé diggante Badr ba Uhud indi trois mille xeexkat gis ngeen ñëw attaqué Makka c'était pour fay islam keroog xasootu Ahzab ba ñu demee waa Makka ak yahud yi nekk Xaybar waa Xatfa comploté ak waa Qurayza ci biir Madina ñu coalisé ahzab ñoom ñëpp ñu dajoo ne dañuy fay l'islam yàlla moo intervenir indi ngelaw indi armée arsalna alayhim rihan wa junudan lam taruha kon loolu xiiwalu bi yàlla lu tax nag yàlla ne yéen jullit ñi mboole seen fàttali ko leen loolu waa gars yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gis sahaba bu ñu leen rayoon ndax daan toog gënaan dañuy tafsir islam fa lay yëpp loolu kon la leen yàlla defal defal nañu ko ñun tamit te loolu it la ab jullit war a yëg mbokk jullit jullitey mbokkam xéewalu sa mbokk jullit sa xéewal la sa nattu mbokk jullit sa nattu la loolu yi ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi bàyyi loolu ci lu ci wàcc xeet bi gën a dëgër bopp ci lim bind ñu bani israil mu ne bani israil jëloon naag ñoom kóllëri kóllëri ga mooy nim jaamu yàlla buñ ko bokkaalil dara daa di topp yonent yàlla Muusa gannaaw loolu borom bi mu ne ma tànn ci ñoom fukki tànniif ak ñaar ñoo xam ne fukki kilifa ak ñaar lañ suñu borom yàlla ne leen su ngeen gëmee sama yonent yi danaa leen jàppale yàlla borom bi di wax ci xawaariyiin wa awxaynaa ilal xawaariyiina ñu ngi noonu ca diggante Isa jamono Moussa bi yàlla tànnoon na ci ñoom fukki kilifa ak ñaar xamal leen ni maa ngi ànd ak yéen ndax yéen ñëpp xam ngeen bani Israil fukki mbooloo la ñu woon ak ñaar fukki fa ak ñaar te rek ba yàlla di xar géej gi fukki yoon ak ñaar la ko def ba leen di yàlla di may ndox fukki robinet ak ñaar la yàlla jënd génne fukki kilifa ak ñaar borom bi ne leen danaa ànd ak yéen dimbali leen ci kaw charte charte bi mooy ngeen taxawal julli joxe azaka gëm sama yeneen jàppale leen loolu mooy tax te loolu it mbokk la yàlla fasante woon ak bani israil loolu fasante xeet bi suñu borom ne waada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihat la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum lazir ah lazir tadaaluhum wala yubaddilannahum min baadi xawfihim amna yabudunani laa yushrikuna bihi bi shay'an suñu borom li mu wax ak bani israil la wax ak xeet yàlla mu ne mi ngi dig ci xeetu yonent bi alayhi salaam ñoo xam ne dana leen jox kattan ci kaw suuf ñu jiite suuf mooy ñan mooy ñi nga xam ne yàlla xam na ci ñoom ni su leen joxee pouvoir dañuy taxawal julli mbokk da ngay gis tey moo demoon dëkk bi Arabie Saoudite dañoo am ñuy surveiller ñoo xam ne bu ñu gisee ba noddu dañu naan ne ñëpp a tëj dem julli ñu taxawal julli dañuy organiser di joxe azaka dañuy dimbali yonent yi jàppale leen jaamu yàlla bañ ko ko bari dara mbokk lii mooy tax dimbalu yàlla am di réponse yow ndawal julit islam mooy diini dëkk lu tax yàlla seetaan tey occidentaux yi tim leen di bombardé lu mu leen neex di rey lu mu leen neexi te jullit ñoom ana seen kat mbokk la ko waral mooy jullit ñi ay tur ñoo fa nekk waaye jullit yooyu jullee na yonent bi alayhi salaam doon jullee soo ko génnee ci un milliard et demi de jullit boo ci amee lu mat vingt pour cent te day te day jullit ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy saytu seen alal di ko génn zakat nam ware soo amee vingt pour cent te day tey ñuy woote wal islam ña nga xam ne dañoo sax ci sunna yonent bi alayhi salaam raxuñu ca dara boo ko doon xool lu néew ngay am ñi nga xam ne it ñooy bokk ñooy gëm yàlla duñ ko bokkaale ak dara boo ko doon xool it mbokk lu néew ngay am loolu moo tax ba dañu xam ne jël bi nu yëkkatiku waatu lislaam munta jaar lu dul ci li borom xam-xam yi di tuddi at tasfiya wa tarbiya at tasfiya mooy nit ñi seetaat seen diine commencé ci yàlla bañ koo bokkaale ak dara ni ñuy jaamoo yàlla ñu bàyyi xuraafaat yi ci rax yépp sax ci sunna taxawal ponki islam julli koor ak lépp ñu def ko ci yàlla tax lii rek mooy tax sunu borom jàll wa ala indi la nga xam ne mooy dimbalam ci ak amma allah suñu borom mu ne danaa far seeni bakkaar na am ndax yàlla daa bind ay malaaka ñoom mënuñoo def bakkaar bu bëri nit ak jinne mënuñoo mucc ci bàkkaar amma su dee ni dog bi yàlla wax dogu nañ ci mu dégg ko bani israel dégg ko xeet borom bi mu ne danaa far seeni bàkkaar danaa leen duggal it la nga xam ne mooy ajjana yoo xam ne dana doon isa ko may dex mbokk lan mooy ajjana ajjana mooy la yonent bi alei salaam wax maa la aynun raat wala usnun samiat wala xatra ala qalbi bashar mooy loo xam ne nit musul gis lu mel ne moom musul dégg lu mel ne moom kenn mënul imaginer ba imaginer lu mel ne àjjana xelu doomu aadama yëgul foofu soo demee yëgal yi am jot am na téere yu ñuy bind ci science fiction di wane ne am na ay planètes yoo xam ne ci kaw jaww ji nii lañ mel seen dund nii la mel nangam nangam wax façon xëyiwal bànneex bi lañu wax ko seen i xalaat waaye yonent bi alayhi salaam nee na doomu aadama mënu imaginer ba imaginer ak jant te it ñun dañ koy dégg moo ko tey ñu ngi dund loo xam ne soo dellu woon deux siècles ci gannaaw suñu maam yi mosuñoo gis lu mel noonu mosuñu ko dégg mënuñu ko imaginer abadan tey ji suñu maam yi boo leen waxoon ne jamono mi ngi ñëw juróomi téeméeri doomu aadama ak seen i bagage dem dugg ci benn néeg nit ah ah waaw néeg ba ni ngi noonu dugg ci benn néeg néeg ba taw ak ñoom bu mujj naaw ak ñoom ñu ndékkee Sénégal réer ñu mbàkk booy dem ñu ko bu sotti ay kii xel bu neexul am de loolu loolu waaw yaakaar naa njëriñ dolli ko ñaan ñetti bi daal fii ak yoon ci tafsir bi sunu mbokk Draman Diallo mu leen di wax naan ndeysaan moo njëkk a xatt suñu jàkk ji fekk muy néeg bu ndaw mu ñu yónnee approche yi nga xam ne seen mene ne moom ni nekk Bakel rek ay xale seen benn góor demoon France fekk ñu ngi doog a defar métro nee na mu ñëw di nettali passan xoolee ci biir France am na saxaar yoo xam ne ay train ci suuf lay daw loolu ñu naan ah ñu naan mu naan ci suuf lay daw ay kilomètres jël ñu naan ah ba mu duggee dem rek ku ne tàpp sa borom eh way kii moom rek gàtt parce que lu tax mooy seen xel mënul yëg ko tey passé nañu dawal saxaar ci suuf waaye laa del sama mbokk ñoom xasan yi nekkoon Canada da ngay gis métro boo xam ne day daw ci suuf am métro bu nekk ci suufam am métro bu nekk ci suufam yaa ngi dégg waxuma loolu géej gi mooy la Manche diggante France ak Angleterre biir géej gi lañu xaar ci suuf la train di jaar géej gi dem loolu mbokk su maam yi ndax mën nañu ko imaginer naka noonu yi àdduna dana jeex doomu aadama développé ci science bu jeexal ko waaye bu ñu yàlla yóbboo àjjana lan koy fekk bët mosu koo gis nopp mosu koo dégg xel mosu koo imaginer yàlla nañ fa yàlla boole ñu ngi noonu fokk looluy àjjana borom boobu subhanahu wa taala nag ni dana leen tàmbalaa dina yoo xam ne ma ngay daw ci suuf dex ya dafi meer ya dafi lem ya dafi nangam ilaa xiri borom bi subhanahu wa taala nag ni képp koo xam ne daay weddi gannaaw lii lii day réere na gën jaa màgg ci aw yoon loolu it mbokk lum nuy jàngal mbokk ay nit dañuy am ay kilifa kilifa yu leen di woo jëme ci dëkk loolu mooy sauvé xeet bu mu mën a doon moo tax xataa yonent bi alayhi salaam sax dane bu ngeen àndi di tukki sax but leen kenn nekk seen kilifa la doon sauvé xeet yi mooy mu am ñoo xam ne dañuy nekk di déglu lu baax di tere lu bon kilifa gu yu nit ñi déggal loolu moo mas a am ci mboolem xeet yu yàlla subhanahu wa taala jubal lawla yanhahum rahbaniyun wal ahbar rahbaniyun wal ahbar an qawlihim al ism wa aqlihim sum ay sëriñ soo xam ne ñooy taxaw di saytu heure bu ñu gisee ay nit sos ay wax yu bee yu bon ñu tere leen jëf yu bon ñu tere leen waaye tey ñu ñuy dund suñu société tey kilifa yéen waroon a yaakaar ñooy tere lu bon ñoom ñoo jiite te shirk ba ñoo jiite te bokkaale ba jiite ci xam leen ni yow mi julliwul wóoru lépp xamal ni yow am nga ci am nga ci droit xamal ne àllaaxira yi tamit la bu dee yaakaar rek lañ gën a yaakaar du yàlla du yëre ci yàlla waaye diw lañ gën a yaakaar mbokk yi ñaari leen wa inaa ilayhi raaji'uun nañu xam ne suñu borom yàlla jalla wa ala bokk na lu gërëm ci ñun mooy nañu fexe ba di ànd ci yàlla tax di diglante lu baax di di terante lu bon yal na yàlla dellu si wax loolu ci ummu islam mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين بارك الله فيكم سيبارو مني نيدي بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم firi ga nga xam ne firi nañ ko seen kóllëre ga la'annaahum rabb nañ leen wa ja'alna quluubahum qaasiya def seen xol yi muy xol yu wow yu dëgër yuharrifuuna al-kalima an mawaadi'i dañuy nekk di jëngal kaddu ya ca place ya waroon a tege wa nasuu hazzan mimmaa zukkiru bi fàtte benn cër ca lañ leen waare woon wala tazaalu tattaliu ala xaainati minhum doo dañ mukk di gis di yërndu di séen ci ñoom loo xam ne ak warlu gi bawoo ci ñoom illa qalilan minhum xanaa nga dund néew ci ñoom faafu anhum jéggal leen wasfax génnale leen inna allaha yuhibbul muhsinin yàlla day bëgg ñuy rafetal ñu ngi noonu mbokk suñu borom day wax ne malgré bani israil tànn na leen mboolem mbindaa kon yi jiitu wanteetul islaam yéemu ca mu tànnal leen ay kilifa yoo xam ni ñoo leen doon wóotu lu baax di leen tere lu bon téewul ñoom ñépp kóllëre ga yàlla fasantoon ak ñoom dañu ko fekk tere leen borom bi yàlla dëpp suñu borom yàlla mu ne wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira ku yàlla dëpp kenn mënatu ko jàpp dimbilee ci borom bi nee na noonu laa dëgërale seen xol yi mbokk ku yàlla dëgëral sa xol doo tee xàmmee lu baax ak lu bon loolu la Muusa ñaanaloon Firawna daa dina yàlla washdud ala qulubihim fala yuminu xatta yarawul azab al alim ñii nga xam ne Firawna dina taabalam yàlla gastel ma seen xol ba dootuñu gis yoonu njëkk loolu it mbokk muy war a tiitloo jullit gàllawaay bu fooy ak sa diini ndax fooy ak sa diini dalaa mën a yóbbu ci yàlla teg sa xol ba dootoo xàmmee yoonu njëkk day gis koo xam ne xam ne ni place bi ma jëm day lii ak bokkaale la ak biddaa la waaye dañ jël rek la intellectuel ak naa ci dem rek su ma paree danaa ci tuub kan moo lay xamal ndax da nga tuub loolu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom mu ne fa lamma zaagu azaaga allahu qulubahum yéefir yi bañ demee ba jéng yàlla daa jéngal seen xol te ko si yàlla jéngal sa xol si fini dootoo xamante lu baax borom bi nee na dañuy jël kaddu yàlla ga di ko déngal ci nam waroon a tege ay bu ñëwee jël tawraat di ko jàng suñu paree ne yàlla day lii la ci nam lii la ci nam seet safaanoog la yàlla santaane woon loolu mbokk nekk ci bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi borom bi ne fàtte nañu lenn ca la ngeen xuppe woon fàtte nañu ndax mooy dañoo fàtte tawraat la ñi ngeen tawraat di ko jàng fàtte nañ mooy lan mooy bàyyi nañ ko jëfee tuñ ko ñu ngi noonu barab bi mu ne nasullaha fa nasiyahum ba ñu fàtte yàlla la leen yàlla fàtte gaa yi ndax yàlla dina fàtte laa yàlla du fàtte kon bañ bàyyi ndigal yàlla la leen yàlla baax naka noonu it bokk fàtte di diine wala fàtte alquran du da ngaa mokkaloon aaya bi mënatoo koo tari laa wallah mooy dañ ko doon jëfe xëy xëy ba ko da nga doon jëfe diine xëy xëy ba ko nasu hazan lima zikroon cër bu rëy fàtte nañ ko dala leen yàlla waare woon yow yonent bi doo dañ mukk di gis wor buy ba woo ci ñoom lu dul lu néew ci ñoom te mbokk it bokk nañuy dàq wor ci kaw suuf mooy yahut su ngeen yahut ko xoolee rek yow ndaw dama nga xool rek seen diggante ak Israël ana ñaata pacte lañ signenti jàmm ni dañuy jàmm balaa yàgg ñu jàngat ñu ngi dégg Camp David ñu ngi dégg Sharm El Sheikh ñu ngi dégg ay kenn xamul borom bi subhanahu wa taala nag mu ne yow yonent bi jéggal leen ci génn li seen mbir te loolu it dafa nekk ci ay étape étape yoo xamee ni nii suñu borom yonent alayhi salaatu wasalaam doon na nekk di jéem a jege jege yahud yi ak nasaraan yi ndax ñoom ñoo bokk diini loolu moo tax ba dañ leen di tolérer luñ dul tolérer yéeféer cent pour cent bu bokk ni luñ doon jàng démb jullit may nañ ko sax mu dem ci ab chrétien ab chrétien na ko doom may ma sa doom bi mu may ku ko def séeg moom am na droit def ko yahud te amul droit def ko ab yéeféer suñu borom yàlla nag ne yàlla dafa bëgg ñi nga xam ne dañuy rafetal al muhsinin doonte ne mbokk rafetal boobu day woni bu ñuy jéggale day fekk ne jéggal nga day jur lu rafet waaye bépp jéggal boo xam ne day jur lu gën a bon jéggal nga bu baax ak fu la mën a tooñ nga koy jéggal suñu borom mu ne fa man afa wa aslah day fekk jéggal gi day tax waa ji dellu gannaaw day tax jéggal gi mu jur jàmm mais boo xam ne boo ko jéggalee day tax mu dem tooñ keneen dana jalgati keneen ku mel noonu waroo ko jéggal borom bi nag mu ne dafa bëgg muslim ndax xam ngeen mbokk na tooñ nga jéggale dafa defe waaye itamit yow boo koy def nga def ko ci yàlla rek a tax mi ngi noonu kon Cheikh Ousmane ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا كفروا فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne wa min alladhina qalu inna nasara ñooñu nga xam ne dañ ne ñun day ay nasaraan lañu axasna misaaqahum jël nañu seen kóllëre fa nasu xazan mimma zikru bi ñoom it ñu fàtte ab cër ci lañ leen waare woon fa agrayna baynahum al adawata wal baxda ci noonu lañu xiirtale ci seen biir la nga xamee ni nii mooy noonoo ak merente ila yawmil qiyaama ba baa bis pécc di taxaw wa sawfa yunabbi'uhum allah xalsal ne na xabaare yàlla bi ma kaanu yasna'uun ca la ñu nekkoon di ka jëfe yaa ahlal kitaab qad jaa'akum rasuluna ay yéen ñi defal téere ji dikkal na leen suñu yéene yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuuna min al kitaab mu leen di leeralal lu bëri la ngeen nekkoon di ko nëbb ci téere bi wa yaafu an kasir donte ne ma ngay jéggale ci lu bëri qad jaakum min allahi nuurun dikkal na leen lu bawoo ci yàlla muy ak leer wa kitaabu mubin ak téere boo xam ni moom ci boppam lu leer la ba pare day leeral yoonu jub mi ngi noonu mbokk suñu borom ba mu jógee ca nasaraan ya xam ngeen ne gannaaw ba daa yónni Isa ibnu Maryam Isa ñëw am chrétien yu ko topp bi mu ne man ansaari ila Allah qaalu hawaariyuun nahnu ansaarullah ba dañ ne annasaara am nañu naan mi ngi jóge ci ñi ñëw di dimbali donte ne am na ñu naan lii de Nasaret fa la Isa jóge woon fa lañ ko askane ala kulli xaal mooy chrétien yi rek ña nga xam ne mooy chrétien yi suñu borom mu ne jëloon naa seen kóllëre gannaaw Isa waaye xiirul ñu fàtte cër ca lañ leen waare woon seen diine ñu xaat lépp lu leen ci neexul ñu sànni ba rek topp la nga xam ne mooy seeni bànneex wax naa leen fàtte ga sànq mooy du fàtte la ñu waxoon ci indiin waaye jëfee duñ ko sànni ko tànn ba suñu borom ne noonu laa tàbbale seen diggante noonu ak meroo ba ilaa yu mujj te yaay gis nga bëri nañ naan waaw jullit ñi dañoo waroon a mel ne catholique yi ah ànd benn fekk ñàkk xam mbokk catholique ak tarixa la ci christianisme catholique ak tarixa la christianisme waaye christianisme dañoo bëri ñu noonu di gis ngeen ñoo ne di yor ay saak témoin de Jéhovah yo nit gën a bañ mooy catholique catholique yi dëkk ñoom lañ ñoom lañ gën a bañ ñoo gën a noonu yaa ne catholique ñoo gën a bëri ñoom ñoo ñoom yor pape bi nekk Rome ñoo gën a bëri yaa ne témoin de Jéhovah mu ngi yor saa yi yaa ne anglican église anglican am nañ fi ay ay ay ay kii yaa ne mormon yaa ne kenn xamul ñaata ñaata tarixa moo am ci christianisme gis ngeen boo demee Angleterre dañ koy xeex xeex yu metti xeex yoo xam ne kenn xamul ñaata la jóge suñu borom mu ne maa dugal seen biir ak noonu lu waral loolu parce que dañoo fàtte la leen yàlla tërala lool tëral seen tërali lu bopp doomu aadama rek xalaatu bi ak xalaatu bi mënta am ku nekk sa xalaatu bopp ku ne nag jàpp yaa gën loolu it mbokk moo xew ci islaam islaam bi mu nekkee yàlla la ñuy jaamu yeneen ci yàlla mooy sëriñu ñëpp julli ñi dañu nekkoon ci jàmm waaye ba mu amee ñu dagg ca làng ga ne kat ñun day suñu waay yàlla jox na ko lu mu sa jox kenn am ñu dagg fee ne ah xamu leen li ngeen di wax ñu ne suñu waay la ko yàlla dox mus koo dox kenn benn waay jóge fële ni képp ku fi mas a jaar ci waliyu yàlla suñu waay ko gën keneen génn fële ne man day ku fi mas a jaar ak muy lëru ñëw bi ngi lay yóbbu diin suñu waay ko gën beneen waay jóge fële ne ko la ngay kàcc lu yàlla bind suñu waay ko gën gaay lii ko indi problème de lii muy indi problème ku la jàpp ne yaa gën de waaye bu ñu yemoon ci yàlla ak yeneen ci yàlla keneen ku mu mën a doon ñu jàpp ne suñu mbokkum jullit la dañu war a ànd ak moom jaamu yàlla aboubacaroo omaroo usmaanoo imaamu malikoo buxaaroo muslimoo ku mu mën a doon suñu mbokkum jullit la dañu war a ànd jaamu yàlla lan moo war nga nit ku dul yeneen ci yàlla mooy jàngal alxuraan sunna jàngal ko ko ko tani ñooñu nga jàngal jàngal ñeneen mbokk lii bu amoon jàmm am waaye da ngay gis noonu goo xam ne ñu ni mari di teel ah sëñ Diouf mii yàggul dara mu may nettali benn waay bi muy waxal ci Sénégal ñu leen nekk mun nañ ñun suñu dëkk day mbooloo sàgg moo fa am na yeneen mbooloo yi ngay dégg nag duñ fa jullitee suñu jàkk bi leen fa jiite duñ leen may jàpp yaa ngi ne te ñoom ñëppee bokk laa ilaaha illa Muhammad rasulullah loolu kon lan moo ko waral nasu hazan ma zikru dañoo fàtte benn cër ci diine yàlla ji te mbokk cër ba gën a réew ñu fàtte mooy cëru laa ilaaha illallah yéen jullit yéen a bokk ñeenti jaam yéen a war a bokk benn référence wuru leen a juyoo ci référence seen référence mooy lan mooy lu wér jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen lu dul loolu kenn du wuru caa xëccoo kenn wuru caa taw ñu ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni ay yéen ahlul kitaab indi naa leen yonent bu leen di leeralal la ngeen nekkoon di nga nëbb ci suñu téere ma ngay doon di jéggale lu bëri xam ne leen dikkal na leen ci yàlla ak leer ak téere boo xam ne nii téere bu biir la looloo tax ba la war ci bépp chrétien bu dégg na yàlla yónni na yonent yàlla Muhammad mu ñëw topp ci gannaaw suñu borom nee na képp koo xam ne yahud nga wala nasaraan nga yëg ne yónni naa yonent yàlla Muhammad nga weddi ko wa man yakfur bihi min al ahzab fa naaru mawqiduhu boo ko weddi sawara nga jëm loolee kon moom lañu war a laaj biir xam naa dañuy bàyyi rek si Ousmane mu fay ñu lañ lekkoon dégg incha allah
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
jazakum allahu xayra bokk suñu borom mu ni leer googee yahdi bihi llahu man ittabaa ridwaana yàlla dana ca jubal ka topp ngërëmal yàlla subula salaam lii di yoonu jàmm ya wa yuxrijuhum min azulumaati ila nuur dana leen génnee ca lëndëm ya yóbbu leen ca leer ga loolu léppit bi isnihi ci ndigalam wa yahdihim ila siraatin mustaqim jubal leen ca la nga xam ne mooy yoonu jub wa ci yoon yoo xam ne lu jub la laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu ibnu maryam ah weddi ne day ñi nga xam ne dañ ne yàlla huwa almasihu ibnu maryam mooy masih doomu maryama ja qul fa man yamliku min allahi shay'a laaj leen moo anakum moo man yàlla ci dara in araada an yuhlika almasih ibnu maryam yàlla bu bëggee alak masih doomu maryama wa ummuhu ak yaayam wa man fi l ardi jamia ak li nekk ci kaw suuf mboole seen walillahi mulku samawati wal ard ñeel na yàlla moomeel ko asamaan ak suuf wa maa baynahuma ak la nekk ca diggante ba yaxluqu maa yashaa mooy bind lu ko neex wallahu ala kulli shay'in qadir te yàlla tey bépp mbir mooy ko ci am kattan mi ngi noonu bokk suñu boroom nee na lii nga xam ne mooy yonent yàlla bi indi ku bëgg ngërëmal yàlla rek ci ngay jaar ku bëgg ngërëmal yàlla rek ci ngay jaar rabbi mu ne man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada al amalu salih mënul nekk lu dul yonent jàngale mu ne dana leen ci jubal subula salaam yow ni yiw yow mi bëgg a xam naka laay def leen teg samay waajur def leen ci ba rafet dama jàngi alquran njaboot gi nag dama jàngi alquran nan lay atte atte bu maandu dama jàngi alquran nan laa war a jëflante ak sama noonu jàngal alquran ibadat jàngal alquran mbokk amul benn yoon boo xam ne nii doomu aadama dana ko aajowoo lu dul suñu borom yàlla jëll wa ala tegtal na ko yoon boo xam ne nii bu dajee ku xam alquran ak sunna mu ne ko boo jaaree bii de da nga mucc mi ngi noonu borom bi nekk laa leen di génnee ci lëndëm yi lëndëm yi bokkaale ya lëndëm yi kéeféer yi lëndëm yi bidaaya ak lëndëm yi nuur ci bàkkaar la nga xam ne ashubuhaat wa shahawaat ashubuhaat lëndëm yooyu nga xam ne moo muur xol yi di jàpp ne am na keneen ku dul yàlla kuy def ko dindi yàlla am na ay nawle ilaahi alquran a lay jàngal ne loolu am alquran it moo lay jàngal ci ne boo bàyyee bànneex yi te yàlla tax lu ko gën a kawe mi ngi lay xaar muy aljanna soo ko bàyyiwul sawar mi ngi lay xaar loolee kon nga leen di génn ci lëndëm yi yóbbu leen ca leeru yàlla la yooyu yëpp it muy nekk ci digalam amul kuy jub lu dul yàlla moo la jubal suñu borom it mu ne danaa leen teg ci siraatal mustaqim loolu it ñu wane ne mbokk jullit ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla ihdina siraatal mustaqim yàlla teg ñu ci siraatal mustaqim teg googu ñaar la mu xamal na ko dimbali na nga jaarte ba dee looloo tax ba njël biinu jéego bi mbokk mooy lan ci jullit mooy dugal jàngi looy jàng mooy jàngal alquran wareef na ci bépp jullit mu dem toog diglu téere borom bi jël waala wala way fexe leen loolu fexe leen ba tey ñoo ngeen gis ngeen li ngeen jëm ci ay juróom-ñaar ba ay dix-sept jël nañ fukki aaya ci téereb yàlla bi fexe leen ba seen dund gi ngeen programme bala maa faatu day danaa fexe ba téereb yàlla bi ma xam ko faatiha lan la yàlla nangu ci loolu baqara ba baa naas yow xale bi nga xam ne góorgóorlu nga ba am defe bac licence master am ñu dem doctorat am nangam gàllawaay ñee ko gën a yomb foofu te mën a ëppal njëriñ foofu falilahi xam nga tey yàlla yombal na ko lool ci internet lool sax tey jii boo demoon am na ay liina yoo xam ne boo ci duggee mboolem tafsirul quran bu ñu mës a def ci ci ci jàkka ji da nga ko fa fekk mu leeralal la fatiha ba naas ak yeneen i borom xam-xam te it maa ngi ci préfecto yi di wax ne am na benn liggéey boo xam ne tamit ñi ngi ko pare ci weer yi passé mi ngi noonu ay mbokk yu nekk États-Unis ñoo ko sàkk woon ci ñun te mooy ñu firi traduire alxuraan bi pas ni koy tafsiri nii mais ñu jël ko rek aaya par aaya mooy aaya bu ne ñu ne lii la firi aaya bu ne lii la firi sans mu am commentaire o tafsir waaw moo tax moo bi loolu def nañ ko ba kaamil bi yëpp jeex waa xam si di nii ñoo ko dëgg a def ay at ci gannaaw am ma lañ commencé woon jëm suuf waaye firi lañ xam ko léegi am na faatiha ba jëm suuf mboolem ñi nga xam ne nii lien boobu bu jox ko Babacar Sarr bi dañ leen ko jox boo duggoon ci alxuraan yëpp nga def coran ci la la prestor bi ak yi dema noonu yàlla mën na def nga gis ko léegi lépp mbokk yi buñ koy wax mooy dañoo wax lu ñu gën a jege waaye am na ñu def liggéey yu gën a rafet gën a mat loolu waaye pour gàttal salaat bi nga tëdd tey mën nga faa tëdd jàng téere bi yàlla bi ba mokkal ko même bu dee mus mënoo lire sax alxuraan loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax njàng yàlla da koo ubbi du ne lire rek yow yor sa xel rek di déglu wallahi da nga xam loo xam ne nii nit ki mën na yor ay diplôme sax xamu ko lii maa ngi fàttaliku maa ngi gis rek ndeysaan Arabie Saoudite benn xale bu am 11 ans daa silma ku tefee benn silma dafa mokkal alquran mokkalaale aaya yi ci 11 ans xoolal ma loolu te lan lay def day def rek toog teg kasatam di déglu di compter wala aaya yi ci ay baaraam noonu la def buñ ne koo tey jii suratul maida aaya fukk nangam mu tari suratul baqara aaya 100 mu tari te 11 ans la am musul gis musul gis ci nga noonu musul gis am na yàlla wax lu triste waa di ko doon testé fekk am na ay kilifa buur yu bëri ñu ngi woon foofu saal bu rëy dégg nga bu ko testé ba pare na ko nag waa yow yàlla xam ne la ay bët lan nga bëggoon wala yàlla delloo waatul say bët lan nga bëgg njëkk a gis mu ne xanaa samay waajur yi ma jàppale ba ma yegg si fii mu ngi noonu mbokk jullit loolu lu mu laa bëgg bëgg a gis li tax ñu nettali ko xoolal yow bi nga xam ne ba nga juddoo ba tey yaa ngi gis say waajur ndax li nga bëgg bàyyi nga ko xel xoolal yow bi nga xam ne yaa ngi gis ndax Quran ndax loolu bàyyi nga ko xel te contraire contraire gis naa koo xam ne ni moom daa muuma daa muuma ndax gars yi xam ngeen ne muuma yi dañuy jàngal Quran bu ma ko jàng ba ma ko dañu leen di wala ñu nekk seen daara nii ci waa ji leen jàngal ñuy def nii tari baqara baqara ba baqara neex dégg nga dégg nga waa ji waa ji même chose ñu koy laaj na ko waaw yow bu la yàlla mayoon ay nopp loo bëgg a jëkk a dégg ci kaw suuf mu ne alquran rek alquran rek la bëggoon a dégg ñu ngi noonu su ko defee lii lépp mbokk li tax ñu leen koy wax mooy ngeen fàttali du xéewal bi yàlla subhanahu wa taala defal ñu ba ñu mën a am lii ñu am lii yëpp far boobu la subhanahu wa taala mu ne weddi na yéeféer yi nga xam ne dañ naan Isa doomu Mariama la waxoon nañ ko di tas yi passé boo demee christianisme li ñuy tuddee trinité mooy seen ñett yooyu ñuy wax am na ñoo xam ne dañ ne Isa la yàlla la Isa ak Mariama mooy ñett yi am na ñoo xam ne dañ ne yàlla la Isa ak Jibril mu ruuxul Quds doon na ñu ne mit la ñett la yoo xam ne benn la yàlla mooy Isa Isa mooy ruuxul Quds ñoom ñett benn la ay yàlla moo feeñu ci jëmmu Isa waaye amul yàlla ak Isa benn la suñu borom nag mu ne weddi nañ ñi naan yàlla mooy Isa na Maryam waaw kan moo mënal yàlla dara su bëggoon a xëy alak Isa alak yaayam alak waa suuf kan moo leen di mënal dara suñu borom mu ne maa moom lépp lu nekk ci kaw asamaan ak suuf Isa sab jaam la Mariama sab jaam la may bind lu ma neex maa bind aadama amul ndey amul baay maa bind Hawa mu jóge ci aadama ci amul ndey naka noonu laa bind Isa mu am yaay ci amul baay xam leen ne yàlla mooy jaam kàttan ci lépp lu mën a doon ñi ngi ko ñaan yàlla nañu boole ci jaam yi ko gëm duñ ko bokkaale dara yàlla nañu boole ci jaam yi ngi jàmmal adduna yi leen jàmmal alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ko lekk lëkkal ñoral di na ko foos loolee téewul ñu man koo lekk problème bi rek mooy la nga xam ne dañ ko ca génne loolee moom bu dee dee arab lañ ndox mu ñu arrosé bañ koo laal bu ko laal it ñu raxas ko dem seen wecc waaye jëmmi jëmmi la nga xam ne la nga xam ne mooy tool bi la nga engrais mooy am ndox la moo xam ne dafa foos la téewul la cay meññ ñu man koo lekk wallahu subhanahu wa taala alam waaw bismillah mu ne ndox piqûre day yàqu koor déedéet piqûre du yàqu koor jëmmi piqûre kese du yàqu koor wallahu alam waaw xam naa lii benn yégle la mu ne association bi taxawu njëriñ yi ñu koy woote altine 10 avril ci Colobane jumaa Colobane ci suba yéene conférence bu buñ fay def moo tebe moo koy def ñu fay sàkkuwaale yëpp lu ci waay mën a yóbbaale lu mu néew néew ñu dimbalee ko jëriñ yi mi ngi noonu wallahu aalam kon mbokk bi was ah waaw ñu mujjee ci mbokk bi rek waaw bismillah waaw liggéey ndax liggéey ci dee wala waraaji mu ne daa xaraam déedéet loolu araam ah utilisé ko ah excuse maanaam la ko gën si utilisé bi loolu déedéet te orange money ak Wave ay nit lañu ñoo xam ni dañ lay rendre service day rendre service tey jii da nga sa mbokk nga ndar ba bëggoon a paas nit ku yóbbu xaalis ndar ni muy def nga def ci orange money bi ndax ko mu ne laa xëy na cent franc mu yóbbu yóbbu la bii nii nga fay ko cent franc mu yóbbu la bii nii noonu rek la def su ko defee kon kii de buñ leen di fay ci service bu ñuy rendre doomu aadama yi waaye dara lu ca aram nekk ca wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain